moom laay mujje waaw ndax ginnaaw moom doomam la te moom xam naa ne ñaan a ëpp ci lu muy def ah, ci combat bi ñaan mais xaadim euh, boo ñaata fatin waaw boobu le 19 décembre la décembre ñëw ne ba pare waaw euh, te gis naa ñaari mbër yëpp ñu ngi ci état de forme bu bu dynamique bu baax leen ñaanal ñoom ñaari yàlla defal leen jàmm mais nag dafa am loo xamante ni moom li ñuy wax ci plateau bi la ak loo xamante ni ci biir xol la ne. waaw ndax tamit Boy ñaa bu ñu fàtte ni ñu nit suñu suñu rakk la. waaw dañoo màggandoo papaam daf ñoo yar mu am fu mu ñu teg. mais dañuy wax nag ci cadre. sport sport. Mm. mais tey combat boobu tamit boo dee seet. bu ñu xeexee waaw bu ñu boo dee seet. waaw Tapha moo xaw a sut tuuti. Mm-hmm. Boy Niang mais man ci li ma jàng ci booy ñaa sut ko taxul nga jaaxal ko ci li ma gis quoi. Mm. ci kaw xeex bi nag ci kaw xeex bi. peut-être am na lu bëri loo xamante ne buñ ko ko defee booy ñaa mën na ci juumloo tafaatin ci biir xeex bi am na nu ñuy xeex rek dina ko ci juumloo te tafaatin mii ma gis décidé na décidé boo xamante ni tey yaakaar na fu booy ñaa fekk fu mu fekk boo ñaa war na ko fu mën a jëlee. parce que nee na ko bu dajee fu ñu dajee su ma la puusal da ngaa war a puus lépp ñëpp dégg nañ loolu mu wax. te boo ñaa nag nee na ko loolu nga wax amul. kon nga xam ni combat bi dèjà na ay tension mhm. ay tension yu bëri moo ci moo ci nekk. Mhm. ci booy ñaar ku ne xam ne dafa tarbi yu bëri. ndax à l'âge de à l'âge de ay ay ay selal ay. ay ay 16 ans ci la commencé jàng boxe. wax dëgg yàlla. li pratique boxe ñun ñu sax pratique wuñ ko ci 8 ans ba jusqu'au bout. te gisagoo booy ñaar mbër mu ñu mbër mu dajal ñu ne la du booy ñaar du mën a booy ñaa daan ko amagul de. Tapha Tine tamit mbër la boo xamante ni bool bool yi sama mbokk bool bool yi. ñoom ñëpp a wu. Ah, maa ngi dégg nag bool. dañoo def sax dañoo def waa 100 pour 100 bool <laughs> waaye dugal na ne waa Sambé xam nga dëgg la waa Sambé la. ndax boo ñaar di bëri dañuy ay quart dañuy jógee bool. waaw ndax man benn am na benn ah. combat bu ma gis. Mhm. ma gis ci ñuy def ci waa Sambé def seen i kéeg yëpp romb ma poste carré boobu maa ngi dem stade. waaw gis leen jógee di dem ci foofu. Mhm. mais dama dama dégg ñoom a ne ñoom ñu ne ñoom bool bool 100 pour 100. Mhm. xam nga pour ñu jàppale euh, Tapha ci combat bi mais combat bi daal xam nga ku ko teg waaye teg na lu rëy loolu moom mën naa la ko wax. boo ñaata baatin konaate boobu oh, xel xel moo koy bëre. waaw ci ñaari côté yëpp ah. oh. parce que tafatin du ñëw force serrure bi ci Boy Niang mm-hmm. il faut mu naxanteeg moom boo war a mën a li mu war a liggéey mu liggéey ko. Mm-hmm. Boy Niang aussi ci côté tactique mu war a ëpp sax lu mu war a liggéey. Mm-hmm. parce que booy liggéey euh, mbër mu toll ne tafatin Euh, nekk un grand champion am puissance am technique de frappe am na noo noo war a aborder ce combat crois que ne ñii ñii ñoom ñoom Père de Gaulle dañ ci liggéey mm-hmm. lu bari waaw mais nag c'est un combat piège pour Tapha parce que bu xalaatee ne moo mën ñaari yoon Boy Niang mën a jum te làmb ji fu mu toll nii bu juumee rek euh, musiba mën na am mm-hmm. waaw combat tactique la daal combat du du doon combat bu man pour man bu gaaw mm-hmm. waaw parce que kooku ay teg-tegi la dëggal fu ngeen toll ci préparation. yow du ma la laaj analyse fan ngeen toll ci préparation sant yàlla mhm. rek mhm. te xam ne champion bu mag la ñuy bëreel. waaw. boo xam ne ñoom ñëpp sëkk suñu doom lañu. Mhm, bien dañ leen di ñaanal jàmm. bien sûr parce que tamit yàlla moom moom ndam. kenn moomu ko suñu. ñun ku nekk la ngay tàll sa loxo waaye li ñu wax ne ku gën a jege gën a yey. waaw amoon xale yëpp la ñuy ñaan ñu am xéwal yu ñu yóbbu seen kër. boo ëllëgee ñu am seen i kër ak seen i oto. ñu ngi si préparation normal comme ni ñu ko doon préparé. Mhm. man moom Max xam nga ma kii xam man lu ma yërëm mbër. Mhm. ma yërëm mbër du ma neexal mbër. Mhm. waaw parce que xam nga ne kenn daawuñu neexal. waaw lu ma yërëm mbër du ma neexal tamit man mbër du ma seef. mbër du ma seef. Ah, da am ful la jaar ci benn bi ndax mbër mi moom succès bi. waaw moom xaalis bi moom moom tàcc yi. kon yow mi koy préparé. waaw da laa war a déggal. nga teg ko ci yoon ndax li ci ëpp moo ko moom. boo ko déggul boo ma déggalul du ma sax di ji dama lay woo réunion woo say mhm. mbokk. Mhm. Mhm. wax ak yow. boo defee erreur de communication lay woo sa dama lay woo woo say mbokk wax ak yow. lisance bi école de lutte booy ñaa ko moom. sa licence école de lutte kii nu mu dee. kay baax kay baax lamsaar seen école de lutte. seen tey taxaw ne école de lutte moom moom moomu bi. boo defee loo war a def ma jël sama licence tey. déglu la. Mhm. boo forcé forcé moom dem si parce que kenn ku ne am nga kilifa. yoon dëgg ma. waaw ñun CNG ñooy suñu kilifa. Mhm. boo amee loolu mooy yóbbu CNG def sama kii taxaw parce que am na yoo booy yoo xam ne genn wàllu booy da nga ne leen liggéeyloo jàppale leen ñu taxaw. ma kii boo gisee ñu taxaw ña euh, euh, Max. Mhm. boo gisee ñu toog xaalis Ndiaye mii. am na ñeneen ñoo xam ne bu ñu toogoon fii man du ma fi toog. waaw. ni da ngay sàmm kóllëre. kóllëre développemental sàmm la. waaw yaa ngi dégg. Mhm. nit da ngay sàmm kóllëre. kii kóllëre gu mu sàmm. Mhm. ah di nuyu àll. Mhm. ah man Maxime ah, Mass Ndiaye. ah googu ñuy sàmm maa ngi ñu dem géej caar yu entraîné. fekk fu ñu nekk ñaata personne ah di ñaanal Baye Mandione. booy bu booy bu booy bu dëggu booy bu yaru la. booy bu baax. booy bu baax. mën a waaw. koo xam ne ne du du fu mu taxaw foo taxaw bu jox la sa cër ah parce que ñun dañoo def si ñoom démb mm-hmm. mais tey tey ñu tey ñu ñu da ngay gis koo xam ne max da ngay gis booy boo xam ne nga koy jàngal lépp wala nga jox ko sa xam-xam mm-hmm. jaar nga si jaar naa si keneen ah, mu se mënu am cent mille francs nga yóbbu ko ba un million mm-hmm. ni yaay ñëw tante ñëw maam ñëw bien sûr man du ma ko sax samay entraîneur am na solo léegi. Euh, samay entraîneur yi samay entraîneur yi. Mhm. booy ñaa bu ñëwee lu bu amee combat la mu ñu teg ci wala am dañ koy am. bien sûr du ma jël lépp jox ay tante ak bàjjen yoo xam ne ba ba ba muy ba xale yi euh, entraîneur reyante gis ñu leen. waaw loolu am na solo loolu loolu dama koy wax. am na bu bi ngay ànd moom succès amul. waaw amul tàccu amul cër war na am léegi nag fi ñu rek mooy. Euh, booy ñaa non non euh, Ama Baldé Modou Lo bu ko defee ndax waxtu yi mi ngi bëgg a xoj. analyse boobu rek laa la ñuy tëjee bu ko defee euh, ñu bàyyi xaadim mu waxtaanaat ci jubilé bi ñu fàttale ko ñuy teewlu euh, Ama Baldé Modou Lo. waaw Ama Modou tamit xam nga combat yi ren moom. dafa nekk combat yu dynamique yu garaaw. nekk ay combat de choc. ndax Ama gisul lu dul moom pour moom fu Modou fekk moom gëm na ni ba tey jii. fu bu arbitre sifflé mu mu mu mun Modou Lo. waaw te Modou gëm na ni loolu Ama Baldé xalaat amul. Mhm. moo tax gis nga dangay dégg sax ñuy gaar gaarawal de kii naa ko duma ñeexu ñebe xam nga kii naa ko xeer gi dalay dal. Mhm. mais nag combat en jeu la. boo xamante ni guerre psychologique da ci am. Mhm. ku gën a muus ci combat boobu tamit yaa moom combat bi ndax combat bu combat njëkkante la. ku ci nekk yaa ngi xool say kaset di xool say sa stade ñu ngi xool mbër mi lii lii paayam lii paayam mais mbër moom loom làmb joo daal maxi li ma la ci njëkk li ma ci gën a wax mooy ko gën a dal ci bis boobu ci biir làmb ji gën a dal gën a jàng gën a liir combat bi yaa moom combat bi comme am na combat yoo xamante ne xeex moo koy gañe am na combat yoo xam ne négociation moo koy gañe am na combat yoo xam ne guerre psychologique moo koy gañe ci biir enceinte bi fi ngeen dajee ngeen di waxante ci nga koy wax ne ko bu arbitre soufflé taxawal soo taxawee nii laa lay def xam nga wax wax foofu wax yoo xamante ne dalay bu ko taxawoon sax doo ko wax pour rien que mu jàpp loolu bu loolu lay jàpp ci xelam nga yoxoo su ko daan ko loolu laa gis ci combat boobu te combat boobu ah. du yomb Ama de bu yaakaar ne moo mën Modou mi ngi nax boppam Modou bu yaakaar ne moo mën Ama mi ngi nax boppam la ko mayal gañ. Modou Lo Ama Baldé boobu man damay jox jox favori le mhm. mooy moom moo yor jox favori. waaw moo yor couronne bi mooy mooy roi donc moom moo war a tenir mhm. position. Ama challenger la mooy ñëw pour foqati chance bi Ama am ci Modou mooy dafa bëgg combat bi dafa yàgg bëgg comme bëre ak Modou mhm. yàlla def dogal na ko je crois que ne moom nag am na tey chance wu wane li tax mu waroon bëgg taxoon mu doon ko dëkk voilà mu doon ko doon dëkk tout mhm. am na chance bi tey waaw Modou nag c'est un combattant redoutable neexula manœuvre waaw mhm. budul benn mbir daal laa xam ne moom fu mu ko fekk dana ko indil ay jafe-jafe muy Balla mais ci combat yi may gis yëpp boo boo boo am na nooy def rek <coughs> bu bu téye combat bi day day naqaree manœuvrer voilà. mais euh, De Gaulle dafa am ñu ne li Ama li Modou Lo bañ la Ama di bëre. Modou Lo bëggul ko ko sëkkatal te Ama foo mu fekk la fa. leen di wax. waaw mais rek euh, comme ni mu la wax fit bu ànd ak xel. waaw waaw. fit bu ànd ak xel borom dof lay doon. waaw parce que gis nga. magu ma ma magu magu magu kii. waaw ah. magu ama. muy ëmb dafa sëkkatal. dafa sëkkatal mu mu. mais da doon gëdd di taxaw. Ah. mais maanaam ama day wax rek la ko bi ah. Balla Gaye def la. ama def de waaw d' mais xam nga Balla Gaye lu ama man daal li ma lay wax. mooy xe fii du ànd ak xel. parce que combat tic tac la. Mm-hmm. combat yi nga wax nii. parce que ama. moo doon dañ ne boo ko bàyyee mu tànn ceeb. di dem di la yër di génn amoo avantage ci daan ko. waaw waaw waaw. mais nag. Uh-huh. attention de. ne du comme li ma la wax. Uh-huh. Modou Lo dafa am caay-caayu uh-huh. kii am caay-caayu làmb lu mu de ama. xam nga ma mooy comme ñii rek. Tapha am caa caay-caayu làmb. xam nga ma loolu tax tic tac. li nga wax jeu bi. waaw stratégie xam ma stratégie bi. mooy mooy gën a kii mooy gën a mooy gën a kii kële ay kon daan nga ko wax kële añu këram ay mbokkam dar